Mbaye eh, ñu ngi lay ziar bu baax sang bi. tur bi naka la. man la Baboy. alors euh, Baboy nu ñëw euh, teewe li nga xam ne nag moo di a euh, coowal suuf bi dox seen diggante ak li nga xam ne nag moo di entreprise bi di Sablix est-ce que mën nga nu gën a leeral ci mbir mi nu mu demee. oui mën naa leen si gën a leeral loo xamante ne nii lu am éclaircissement la bu baax a baax a baax mooy li nga xamante ne moo xew fii fii si Ngor Almadi parce que fii litige amu fi fii force moo fi am arnaque agression agression moo fi am moo am fii si Ngor Almadi parce que 1000 mètres carrés lañ fi am Sabilix si am na fi 640 mètres carrés boo xamante ne nii famille Galdino Perera ñoo leen ko jaay devant notaire notaire biñ leen ko jaayee ma Massamba Mbacké ñoom fa lañ defee seen vente 640 mètres carrés lañ fi am yu féete nii léegi biñ ko amee ba pare proposé suñ proposé ñu pour ñu jaay leen leen 1000 mètres carrés bi dem négociation fekk grand bi ba France biñ demee ñu waxtaan ak garant bi ñu waxtaan ak garant ne ko dañ bëggoon nga jaay ñu fële garant bi xamal na leen carrément ñun kat man ak sumay rakk ak sumay frer yi may yàgg nekkal foofu dañ si am projet mënuñu ko jaay ñu demandé ko location kon te bi fii waa TFM la ko joxoon comme ñu demandé ko location biñ ko demandé location grand bi xam na ni ñii jubuñu mooy leen déedéet ñoom ñu jóge fa dem seen yoon biñ demee seen yoon ñu ñu continuer di occuper terrain bi di fi nekk ba benn instant ñoom ñu ñëw ñu ne dañuy gas terrain bi parce que juboo nañu wax grand bi ñu déggoo grand bi grand bi ne loolu amul ñu taxaw suñu taxawaay ñu ñëw si élection yi nii campagne bi si lañ ñëw gas terrain bi bi gas terrain bi ñu ñëw arrêté leen. si ndigalu kat nañu commencé gas bi. seen ndigalu bopp si seen doole parce que Amadou Ba moo leen doon jàppale moo nekkoon seen ginnaaw ñoom ñu yor seen xaalis di joxe fu ne oo nañ ma fi. di ma proposer xaalis lijjantiw ñu leen soxla ñu seen xaalis waaw soxla ñu seen xaalis léegi bi ñu ñëwee commencé seen i travaux dañ commencé seen i travaux ñun tamit ñun ñu xam ne dañu war a jaar si yoon assignation bi moo nekk nii assignation bi nga xamante ne moom lañ leen defal au niveau de tribunal moo nekk nii assignation bi moo nekk nii boo xam ne ne au niveau de tribunal la waaw saaburi waa xeex bi yàgg na métti na mais yàlla dëgg lay àndal yàlla moom rek mooy buur moom mooy borom doole parce que ñoom jàppale nañ Amadou Ba nu ne foog ne mooy gagné pour ñu continuer lii. ay millions ki gën a ndaw Pastef mën na yenu Amadou Ba ba si kaw dóor si suuf parce que sénégalais yi ñoo bëgg changement sunu réew ñu am leneen moo tax réew mi tollootuñu foo xamante ne muy réewum jaay doole réewum nooteel. premier scandale foncier si Dakar si Almadies. moo nekk nii parce que fii vente amu fi forcé moo fi am ba jël alalu jàmbur. léegi Saaburi bi ñu demee ba si moom ñu waxtaan Saaburi Ndiaye colonel d'escorte Saaburi di nit ku baax. koo xamante ne moom dossier bi bu yemoon si moom dina ko lijjanti parce que Saaburi moo wax en haute voix. ne mhm. problème bi am fii Sabilix si ak ñun. du problème boo xamante ne bu garaaw la parce que titre yi bokkuñu. dëgg la parce que ñun suñu titre mu ngi nekk soixante cinq soixante quinze. Mhm. TF ñoom seen titre moo nekk nii vingt trois cent vingt cinq DG bokkul Sabury ne titre dafa dend kese mais bokkul. Mhm. ñoom Sabilix amuñu lu dul jël seen six cent quarante mètres carrés mhm. bàyyi li nga xamante ne mooy mille quatre mille mètres jàmbur. te am na loo xam ne lu si gën am loo xam ne lu gën a garaaw loolu parce que dafa am benn titre boo xam ne dafa nekk à côté bi nële benn cent soixante six mètres carrés boo xam ne nii fami Ngor ñoo ko moomoon Sambène bu Ngor ñoom ñu gas ko ba pare ñooy ñëw di réclamer ñu ne leen joxuñu leen dara mais da ngeen ñu koy jaay par force doole par force ñooñu amuñu pexe amuñu fuñ ko yuuxoo ñu jaay leen ko a une somme de quatre-vingts millions parce que ñun fii dara ëmpuñu fii quatre-vingts millions lañ leen ko forcé jaay leen ko. dañ leen forcé jaay bi dañ leen forcé jaay bi te 166 mètres carrés bi dafa amoon charge bu si tegu boo xam ne doomu aadama waru ko tabax Sablix si boole na loolu boole suñuy 1000 mètres carrés ak 640 mètres carrés yi ñu ko jaay yi ko famille Galdino Pereira jaay boole lépp gas ko ba koy liggéey nii benn affaire moo am nag maintenant parce que weesu nañ dëkk boo xam ne bu ñuy jaay doole. wala bu ñuy xoxotalee wala bu ñuy tiitalee. ñun dëkkuñu Éthiopie dëkkuñu Tchad Sénégal gii lañ dëkk Ndakaaru Njaay waaw Sabilix injustice ku koy wër si foncier boo téye Sabilix jàpp nga ko boo ko bàyyee dootoo ko gisati injustice dëgg ñoom la ñuy dawal waa Sabilix parce que lii c'est pas normal lii dafa ñaaw c'est vilain lii dafa ñaaw sax si dégg-dégg wax duma laa gis-gis lii dafa salte Sénégal mérité ñu li ñun sénégalais yi. léegi yéen euh, lan mooy doon li nga xam ne nag moom mooy seen plan d'action ci li nga xam ne nag moo di liggéey bi. waaw suñu plan d'action mooy que dañuy interpeller ki nga xamante ne mooy son excellence monsieur Bassirou ñaa xar fay moom mi nga xamante ne ak son premier ministre. man Sonko mu sell mi. yéen ñi nga xamante ne nii ñun bi ñuy sonn si campagne yi. Mhm. pour lii la woon jaay doole bi nga xamante ne moo fi am suñuy oto lañ doon taal def suñuy a topp si lépp daw ñu si dara daw ñu si dara daw si dara ba yàlla dogal lii ñun nag yéen bu ngeen fi toogee gëm nañ ni jaay doole war na jeex si dëkk bi waaw am na ñu si jàpp tëj leen fii ak yëpp mhm. mais loolu lépp yéen jaral ngeen ñu ko mais pour ñun bi ngeen ñëwee lii dafa war a jeex parce que lii dafa ñaaw. ku ne est-ce que gis ngeen euh, li nga xam ne ne mooy kilifa yi nga mel ni les jaraaf les ndéji réew les saltige mhm. nga xam ne buñ nee leen tey ñoom ala seen taxawaay moo fi xew boobu ñoom ñëpp gis nañ leen. waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp méttiitu xol lañ am méttiitu xol boo xamante ne nii nag amul àpp. mais maintenant boo gisee ñu doxalee nii parce que régime bi dafa changé mais bu fekkoon résime bi fi nekkoon la dañuy teg ak ñoom jixaat mais résime bi nga xam ne la moo tegu am nañ si ñoom yaakaar gu mat sëkk wane suñu colère ak sunu manifestation boo xamante ne si injustice bu fi am. absolument ñu xam ne ñii teguñu si dëgg newuñu si dëgg loolu moo tax ñu yaakaar leen si loolu moo tax ñu ñëwee par respect par discipline pour taxaw manifester wane sunu colère ak sunu métit ak li nga xamante ne nii moo dul dëgg si réew mi Sabilix on n'a pas besoin d'une société comme Sabilix ici au Sénégal on n'a pas besoin parce que on n'a pas besoin ici une société ki arnaque la population qui agresse la population par leur propre propriétaire on ne veut pas ça ici au Sénégal ça c'est vrai lii dafa ñaaw. ban message ngay lancer sa dernier message bi nga xam ne ni mooy. république bu mënta jóg rek dal kaw lébu yi nangu seeni suuf jox ko ay jàmbur yu jógee fële ñëw ne ñoom ñoo moom fii tey ana ban message ngay lancé ba nga xam ne lébu li nga xam ne nii mooy lii nga def ko leçon ba lii bañ ñu dalate ndax saa su ne rek gis nañ ne lébu yi dañ leen di attaqué nangu seeni suuf dem jaay loolu waaw message bi ñuy lancé si loolu pour ñoom ñu xam ne waa Sénégal xam ne ñun jógewuñu Dakar jógewuñu Ngor wala Yoff wala Wakaam di dem ba Kidira di fa xëccoo ay suuf suuf fi ñuy xëccoo suñuy suufu maam la ñoo ko moom angaar prérien bi ku xool li fi am sa yaram day daw plus de mille cinq cent parcelles amul benn waa yoof boo xamante ne nii am na fa benn parcelle pour kër boo xam ne ak dëkkuwaay bi nu mu xatee si réew mi loolu dafa ñaaw ministre Moussa Bocar Thiam am fa plus de dix terrain biram biram Diouf am fa plus de dix terrain biram fay biram fay am fa plus de dix terrain fan ngeen ko jëlee Pape Malick Ndour am fa plus de dix terrain fan ngeen ko jëlee yéen ñi newoon si état bi yéen ñi nga xamante ne ay responsable ngeen woon ay ministre ngeen woon seen i gel sax yi ngeen doon jël si suuf may ngeen leen fa ay terrain te doomi dëkk bi amuñu fu ñu dëkk waay bi xat na dëkk bi métti na léegi nag li ñuy ñaan si loolu ndimbal la ñaan si loolu si état bi état bi nga xamante ne ñëw nañ ñoo am espère am yaakaar ne néewalaate doole dina jeex si réew mi parce que lii dafa metti fekke la ba fi nga dëkk di xëccu di forcer di jaay doole di jël li nga moom loolu dafa ñaaw te loolu lu war a jeex si biir réew mi la ñu ngi laase message di o son excellence monsieur Bassirou Diomaye Ñaaxar fay et son premier ministre Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ñu ngi loon woo si combat bi parce que moom lañ débuté ak yéen boobu ba léegi si élection yi lii travaux yi ngeen di gis nii yëpp si campagne bi la si élection yi la yii boo gisee nii dañ doon profito pour ñoom Amadou Ba mooy gagné mais yàlla yàlla yàlla rek ay buur yàlla rek ay kon ñu ngi demander appel di demande appel la tribunal des grandes instances de Dakar di demande appel kilifa yi réew mi yëpp yi fi am ndombal tànk yëpp ñu xam ne lii moo am si réew mi directeur impo ak ñëpp coordonnées yi coordonnées yi ko rocc ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jégalu bu baax wan na ne suñu xol moom neexul kese te am na loo xamante ne kon te régime bi changé na am na noo xam ne bëgguñu ko doxalee ñëw fii yëngal fii yëpp dañuy ñëw par respect signaler li nga xamante ne moo ñu metti suñu biir xol am si yaakaar si yéen gannaaw bañ amee yaakaar si yàlla suñu borom moom mu ñu fi téye ba léegi di am yaakaar si yéen régime bu bees bi ngeen dimbali ñu te yàlla rek tax ngeen xam ne fii litige foncier amu fi fa xorti moo fi am fekk nit la si alalam nga proposé ko vant mu ne la dama fi am projet mais ñun am nañ droit am nañ am suñu am si projet comme ñëpp parce que ay sénégalais lañ te am nañ objectif xam nga suñu vision macha allah am nañ droit am dara am si projet nit proposé ñu vente duñ ko jaay fii loolu moo fi am ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen remercier di leen jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf bilahi mina seytaan rajim ñu ngi fas yéene di wax ñun dañuy confirmer rek parce que sama frère bi kii sama rakk la wax na lépp te moom moo terrain bi mun naa ne moom mooy responsable bi li fi xew depuis 2006 ba léegi lépp moom la kàddoom yi rek laay confirmer pour wane ko ngeen xam ne moom li mu wax lépp noonu la demee fii dañ fay sonn dañ fay taay dañ fay damm ni mu ko expliqué nag amul lenn lenn loolu xamante ne dañ si léegi nag man li may confirmer rek pour ñëpp état beeg ñëpp xam ne kii dafa sonn ci lii quoi loolu rek laa ñëwoon pour confirmer ni mu ko expliqué noonu la gën a nañ ko gën a expliqué. waaw Sabilix ni mu demee wax nga yëpp Balla man munu wax. bàyyee naa kook lépp dama ñëwoon pour confirmer rek ni mu ko expliqué li ma ciy sànni nag moom mooy bu état bi àdduwul ñun dañu nar a mobiliser Ngor Wakaam Yoof pour ñu jéem a def li nga xamante ne moom lañ ñu may tey dañoo ñëw takk morceau yu xonk pour confirmer waaw mais bu ko defee bu confirmation bi jàllulee ñu ngi teel a wax li nga xamante ne nii état bi comme ni ko sama rakk bi waxee kaddu yu rafet la wax te ni mu ko waxee noonu la amee parce que moo ko dund moom ak kii ñoo ko dund amaana man daj naa si coono mais ñoom li ñu si daj ñun ñu ko si lii c'est la famille lii du benn nit du jaar nit du ñetti nit frère bi dafa nekk ci kaw rek dugal xaalisam moom xaalisam li mu si def munu la ko wax kii li mu ci def munu la ko wax mais dañoo néew doole ñu koy jënd depuis 2009 xaw ma 2010 la woon ñuy dem ba mille vingt 2024 waaw ñuy dem di dem di dem ba Euh, société bii ñuy wax sabli si juddu si diggante bi naka la nit di moomee alalam yow juddoogoo nga juddu bëgg a ñëw nangu alal bi si si euh, loxom moo tax ma ñëw nii rek di feddali coloré pour confirmer li sama rakk bi wax parce que li mu dund ci terrain bi amaana man mii sax dund ma ko waaw mais pour autorités yi nga xam ne moom àdduna leen wax na lépp ak li mu daj si campagne beeg li mu daj si yëpp ma bëgg ñu bàyyi ñu xel ñu gën a àddu ci loolu balaa problème di am man foofu laay waxee yow parce que bu ñu amul solution fi mu ne nii ngor dina jog wakaam dina jog yoof dina jóg te boobaa lu ci xew rek autorité lay quoi loolu moo taxoon ma ne naa ci dugg pour ka dugal sama kàddu tuuti rek parce que tous les moyens yoo xamante ne pour papier la def naa ko mais aw ma yo aw ma aw ma aw aw ma bunt waaw am nañ arrêt d'escorte am lépp mais terewul ñoom ñu ngi continuer liggéey ñu ne benn euh, sommation lañu am bu jógee tribunal procureur moo leen wax pour ñu liggéey fii xeex nañ ko ak awacoor dañ ko gañe xeex ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo fi nekkoon dañ koo gañe ñun lu leer la ñu yor kayit yeeg lépp a ngi fi loo xamante ne moo ñuy wan ne ñun mbooloo mii ñoo moom lii lii du yëfu benn nit du yëfu ñaar nit yëfu mbooloo la yëfu askan la léegi nag bu si état bi jógul askan bi yëpp di leen jóg parce que am nañu ay mbokk yoo xam ne jóg na pare nañu pour jàppale ñu ñu xeex lii waaw léegi nag loolu laa si doon sànni rek di leen sant di leen gërëm yéen ngeen ñëwee pour participer tamit pour jàppale ñu fayu ñu leen dërëm ngeen ñëw pour jàppale ñu si ñàkk doole bi ñu ñàkk doole waaw loolu rek moo leen indi ñu leen di sant di leen gërëm seen bi yàlla na ko yàlla yëkkati sa kaw sa kanam sant nañ leen gërëm nañ leen. jërëjëf man Diomaye fay man gis nga damaa sonn ci yow le premier ministre Ousmane Sonko dama sonn ci campagne bi ndax lan parce que dañoo sonn ci ngor bi di sonn fi ci suuf si bëgg nga jàppalu may taal samay oto joxe samay oto joxe samay carburant di def ay réunion ñëpp pour ñu voter la dama bëgg nga wax ci lii ak angal preneur surtout angal yaa may dégg bu nga wax ci li ci lii rapidement sinon dina indi leneen Sabilis laa bëgg Sabilis mu bàyyi suñu suuf ñun ñu xaalis mais suñu alal nañu ko delloo sinon leneen dina fi am Ngor Wakaam Yoof Barni lépp yëpp nag pare nañ dugg nañ fépp pare fépp mais bëgguñu salté seen nguur wax lañ ci lii merci beaucoup si la bopp lii c'est mbo alalu benn

lébu yi suñu alal la ñuy défendre waa Sabilis ñun teere bi biñ fi nekkee su nguur ak Abdou Diouf la woon yàgg nañ fi trop man mii la fi policiers yi jàppoon camion bi fi bu bees bii ñu taxaw ñu suñu alal yi ñu am ñun lébu yi sonn nañ trop dëkkuwaay yi na te metti na nañu jàppale Sabilis Sabilis yi nga xam ne dañ doy waar fu ñu nekk ñu bëgg fa am ay immeuble loolu dafa yomba si alal libu yi rek la ñuy sëb ka dugg ñu mënuñu dem faneen di xëjoo waa Ndengaleer bi ñu jëlee seen alal dañ taxaw kaas président bi fi nekk nii dafa taxawoon kaas ne seen alal kenn du ko jël bon suñu alal ñu libu yi nañu si jàppare angar prere bi ay ministre rek a si am si gouvernement Macky Sall bi yàq suuf yi libu yëpp libu yi na nañ jeunes yaa ngi nii amuñu fu ñu taxaw te ji bu ñu jàppale woon yëpp du am nañ jàppale libu yi te yàlla tax coutume baa ngi fi nañ leen jàppale sel diggéey jaraaf yi nañ torop ay hectare ñaari nit bëgg ko séddoo wala ñeenti nit kenn nit bëgg am cinq kër ci bi loolu dafa yomba trop dafa yomb quoi nañu bàyyi suñu alal ñun sonn nañ trop loolu la ñu amoon lu ñu ci wax ñu jéggalu incha allah waaw. Ah, ah, man moom man moom wax dëgg yàlla dafa am loo ma metti loo xam te ne yàgg na trop mënu ma ko faj yaa ngi dégg ñun ñii kenn mënu si dara dañu jaay doole. surtout terrain bii nii yaa ngi dégg euh, onze ans ñu ngi fi onze ans yàlla xam na ne ñu ngi fi jàpp nañ suma grand bi Assane loolu fi la fekk Sabilis indi fi ay mbër ñoom xam te ne Grand Médine lañ dëkk yaa ngi dégg loolu yëpp fi la fekk di jaay doole ñu xeexaax ñoom ñoo nit ay lëbu lañ duñ daw xeexaax ñoom mu metti ñooñu nañu carrément ñii am nañ lu ñuy am ba pare am nañ seen alal ñun buñ doon ay dof yaa ngi dégg ñun dañu indi pour fay ñu yaa ngi dégg te yéen fi ngeen dëkk ay lébu ngeen ñun dañoo ñuy bàyyi ñu jël ñoom lekk seen xaalis yéen sax dinañ leen si may ñu doore a d'accord wax ñëw ñu ñëw def semblant affaire yooyu noonu dem dem seen yoon noonu dootuñ fi ñëw yaa ngi dégg mais terrain bii nii yàlla xam na dañ jaay doole dañ jaay doole jaay doole parce que ñun dañ fi doon ñëw zemi bi fi ñu fi mujjee fekk nii yaa ngi dégg ñun bañu si woon dara nañ dañoo jàppante ñoom kuñ si yóbbu ñu yóbbu ñoo ñu ëpp doole xam na lool mais dégg mais ñu def li ñu am yëpp ñu def ko parce que lii dafa metti am 11 ans ñu def ko fi yaa ngi dégg sëbilis ñëw ñu naan xaw ma Amadou Ba dafa bokk si lii ñoo la tudd sax ostionnaire yi xaw ma lan yaa ngi dégg moo tax ñu jaay yu doole mais xam na ne li ñu tabax nii yàlla xam na ne moomuñu ko suñu benn grand moo ko moom su naan sëy na yaa dégg doon suñu suñu grand ñu dëkk ak moom ñu jaay ko doole. jël naan moitié na moitié bi la Seyna moom loolu la njëkk a wax na ñoom liñ moom dañ koy jël ndakate amuñu fa dara kayit gën baax sax amuñu fa amu amuñu ko am na kilifa gu mag moo oo na ma bàyyi leen lii yaa ngi dégg comme tey nee na moom sax nii da leen ëpp doole jéem leen a bàyyi parce que nii mënoo leen si ñoom dara yaa ngi dégg ñu ne duñ bàyyi mais instant nii nii nii nii yàlla xam na ne dañ bëgg ñii fi nekk nii ñu dimbali ñu ko waa parce que ñu xam na ne ay dëgg si dëggal rek la ñuy dox ñu dimbali ñu si lii terrain bii nii bañu si dara ndëkk yàlla xam na ka bañu si dara parce que fi leen doonee que du xeex bu ba ca ñu di ñu jaay dool di ñu yóbbu ñoom de comme ñoom saa ñoo fi ne na ñu si terrain bi te yàlla rek tax saa sonn nañ quoi.